bismillahi rahmani rahim samedi 25 muharram 1344 ci da Seyd Mouhamadul Mansour gane àdduna ci xamariya daje 15 août ci ci hijriya wax ci hijriya daje 15 euh, août 1925 ci miladiya mi ngi génn àdduna ni nga ko waxee 8 décembre 2012 soo connecté daf lay jox 24 muharram samedi de bi mu ganee àdduna ci la génn àdduna samedi 24 muharram 1434 gis nga nafsul adat chiffre bi nga am cent 1344 daanaka ñaari chiffre yenn yi ñoo weccoo ñëw dugg ci digg bi bët set di la vingt cinq muy bis bi xanaa bi mu gane woon àdduna ñu denc ko boromam mooy da day mel ni danaan guddi gi doo jeex muy guddi altine gi ni ko Serigne Habib waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam altine la gane àdduna altine la génn àdduna wa qila fi bi hubbihi même dat bi sax fukki fan ak ñaar ci rabiul awal ci la wuy ji borom Cheikh na Tijaan yi alxames la gane àdduna ci la génn àdduna waaye moom façon bi dafa yéeme jàpp sa bis jàpp sa weer jàpp sa date ñett yooyu mu boole moom ayatu moo tax ma wax ca arabal ba ma ne fii kadim min muharramin shukra rabbi malikan yow ma sabtihi ajabani fii kadim min muharram ci la génn àdduna 24 muharram shukra rabbi lu ko góor gi waxoon Mansuuru santal yàlla shukra rabbi boo ko déchiffré mooy atam si ci la bokk shukra rabbi mbir mu may làmboo sant sama borom lu kéemtaan la moo tax ca matlaa ba dama wax ne amru haadihi l xayaati amrun ma ala xaalatin yaduumu nuaani zalzala al arda wal quluuba jamian wa kasal xusna tal wujuha araani nabaun jaa min faransa sabaxa fa athaara alxilaafa kulla makani min samuutin ilman wa naafin jihaara awa qaalu fa mislu lawali saani fa azala alxilaafa Abdul Aziz istala kullu man alayha li faani gis nga xabaar bi bu mu jibee yàlla dafa dajale ñi saxal ak ñi weddi ci benn kàddu mooy fa mislul awal asaani ñi weddi dañ ne ah demoon na fi France di faju ñu tàggee ko dara amu ci waaye ña xam le xew ne ah maam Habib yàlla nga ko jële woon foofa ca France bisu samedi magam Seydi Jamil bu dee ci senegal nga ne bisu 8 décembre ba tey ci yooyu yépp bu ci ne day junju ne am na maqaama yu mu donn ci ñoom waaw kon boobu loolu laa ciy doyloo ñaar juróom-ñetteelu fan bi ñoom xaaji bay di dañ ma woo ci jumaam ci golf ne dañu bëgg a def ay kaamil dimbale ñu it nga def waxtaan ci moom ah Tiwaawan du wéet kon nag naa dem foofu te foofu amoo amoo fay benn njariñ it ñu ñëw bi ñu defee kaamil yi lu ma ñetti kaamil dog yeñ fa def yépp ci njiitul imaam Mouhamadul Amin Sakho ñu ne naa ci sànni kàddu ma ne leen Serigne Mansour man xawma luy wilaaya bay lijjanti wilaayam xam-xam it tuuti naa ci wax xam-xam waaye kilifa dañuy jànge ci moom ma ne leen bu ci wàllu shaxsiye boobu personnalité boobu li ma jànge ci moom te ni ko Habib waxe bokk nañ daan fanaan ca saal bu magam ba booba kenn amu ci nekk ci ñoom bokk naa ci li ma jànge ci moom ne ku amoon jom la bind boobu ndaw ñëpp war nañ ko jànge ci moom jom xamoo ku toog da ngay dégg ko ne man sama tànta man rek la bañ sama yaay man rek la bañ sax sama baay man rek la bañ sax danañ ci egg ndax ñàkk jom moo ko nettali ci làmmiñu boppam xam nga ku gane àdduna gimmee fi mu gimmi am cheikh am cheikh bu mel ni Cheikh Ahmed Tijani ku ne xam na ne kéemtaan am mag ju mel ni cheikh Mouhamadunil Moustapha Jamil am rakk bu mel ni Seydi Abdoul Aziz yal na yàlla dëgëral leen yokk seen leer moo wax ci làmmiñam nettali ñu ko ne Seydi Jamil egg naat ci moom tekki gàllaajam takkal ko lu ko ko may bu sësoon ci moom rëkk di ko rëkk du am loolu ah moo ñu nettali ci làmmiñam Serigne Abdou dina koy nettali lu bari ne suñu maam soxna astukan bi muy génn àdduna bi ñu egsee ci moom moo Serigne Cheikh def ne leen ngeen góor góorgóorlu sànni leen lam leen di sànni ci kàddu ne waaye sama dénkaane la ma bëgg wax naa ko Mouhamadou Nil Mansour ah loolu joma ko ko may jom jooju nag moo ko togg ci la taxawe li mu taxawe yëpp doon kéemtaan ci sàmm kóllëre gi ko góor gi dénk xaafisan ahda cheikhihi wa abihi raiyan saahiran bi xayri hawaani beneen bi ci des nga xam ne moom laa wax ne jëlee naa ko ci jàngaleem du wax ay fànn de mooy baatu wolof lañu ko daan wax daf ne ndaw ndaw ñu ne ko si la béyk mu ne lu mu ëppalee mag na ko ko nëbb ba mu des teggin ndaw lu mu ëppalee mag na ko ko nëbb ba mu des teggin teggin moom na ko ko won ba mu doy nga ne foofu la yem mu caxal ñu ko walla boog mu léebal ñu ko xale danga koy léebal mu ne doom góor ga dafa daje xale ba ca gaal ga ñu dem tuuti xale bi génne kartaabalam génne jukki alquran tas tàmbali jàng jël jukki jox góor gi mu ngi weex tàll ak bejja nee na góor gi xoolaat ko ne ko ah doom de nga baal ma man jotuma jàng nee na xale bi wëlbati ko xool ko ca ñàkk teggin ya ne ko ah góor gi yàgg sa bejjaaw bii nga ne jotoo jàng yow de sànq nga sa jamono yow de góor gi sànq nga sa jamono ah murus ndax dëgg la waaye nee nañu ñu dem tuuti rek gaal gi bët foofu de am na lu ñu fa soxla de lu dul jukki alxuraan nee na góor gi siggi xool xale bi dafa sëggoon de waaye fi ñu toll mën na siggi nee na mu siggi xool xale bi ne ko doom ba jotoon nga man ndox ne na xale bi lewatali bët ah papa de man jotuma man ndox mu ne ko nga ne la ca gaal gi bët ah nee na mu lewetali bët góor gi def ni ñuy def rek takk ba def ko benn ëmb ci bopp dal di koy won ne man man na plongé dem del si waat xanaa mu defee ne daf koy yërëm mu ne ko doom nga ne ma lan mu ne ko ah bàyyi man jotuma man ndox de mu ne ko man de jàngoon naa ko ba may ndaw xam naa man sànq naa sama jamono yow nag sa dund nga sànq jàmm ak jàmm gone gu ñàkk teggin moo xam-xamam yépp ci ndox lañuy ñuy dégg xam nga loolu mën nga ci tabax lu ne ma ne leen loolu ci li ma jànge ci université loolu laa ci mën a nett waaw kon nag marsiye bu wolofal bi moom lañ may may rek ma jàng ko duut kenn sama goro naa gisee guñ da ngeen may baal rek ngeen awoo ko Seydi Mansour na buur bi fay ko xolam yokk leeram fulal ko sant jëfam Seydi Mansour na buur bi fay ko xolam yokk fulal ko sant jëfam jigéen ñi ngeen baal ma bu kenn jëkk fi nga toog na ku ne jàpp ci salaatul faatihi ñu àddiyal ko ko góor ak jigéen ba ñu eggal Seydi Mansour na buur bi fay ko xolam yokk fulal ko sant jëfam سيدي منصور نكون بفيك خلم يكلم فلل فيك amuloon góor gi xejj seen ci mayam kulul ko fay noon bu amee noon itamit mu junay soppe xer ci moom ndax tabam waaw seydi Mansuur na bi fay taxala yokki leeram ko fay ko jëfam teral mag ñi yaram ndaw ñi la woon yi it la ci lu am waaw Seydi Mansour la guddi fay ka xalaat yëpp gi ku lawul ko fay ka jëfoo ana baayub jirim yi saaqu jaboot yi ana kuy wuññi niiru jaaxle ngalam waaw Seydi Mansuur na buur bi fay ko xalaat yokki leeram fu leer ko fay ko jëfoo ana kuy jox ujaaj bi yéem ak dewis nga na leem ak dépense bu doy ci këram waaw Seydi Mansour na bul si fay doxalaat yokki leeram fu ko fay ko ñaan ci aajo naan la demal yow na sa xel dal mu mel ni kun ci amam. waaw Seydi Mansour na bul si fay doxalaat yëpp leeram ku leen fay ko ana kuy fomp rongo ñuy ko jaaxle di la may soxna tudd doom ak sëtam si di Mansuur na ko di fay ko xala yëpp leeram ku leen ko fay ko ana téere xilaas bi guddi yonen bi ku ko fi toj ca naan lu ngeen teg ma dem waaw si imal seer na bi fay ko ma maam ne sama baay ne ci yonen di la xuusal ci géeji selli mayam boo ko fekkee ci asura mu ziyaar bay nga xam ne moo doon mboota géeju mbóot dara maamam mukk du fay ndax jëfam waaw sëy di maasur fagul fay toxola yoo laaram fulal ko fay ko jëfam nay foore samp nay ilimaan ku ci ne jàngale ka leeral go xam waaw Seydi Mansour na buur bi fay ko xolam yokki leeram fu lay ko fay ko jëfam boo gëmul lii ma wax demal ci région yi ba ziyaarab muntadi bi xam ñeenti taayi waxal ne jooy nañu Mansuur keno diine di kaaba xam-xam alam waaw si di di fay ko xolam yokki leeram fulal ko fay ko muy téeréem yi tool yi ajal taalibey daara yee sëngéem ndax gëlëm waaw Seydi Maalik Sarr dabuur bi say ko xolam yotti leeram fulal ko fay ko jëfoo sax fi moom faw buur bi mooy ki jagoo Seydi Mansour sax fii ci turam. waaw Seydi Mansour na tur bi fay ko xoolal. yàqi leen kulal ba doo gis ku peeg ak xamam waaw ku ci man saar na kuur di fay doxalam ku lal ko fay ko jëfoo ku ko na ko buur yàlla fay nangul ko Seydi Mansour na baayam ci fekki maamam Seydi Ahmed si itam. waaw Seydi Maam Saar na góor di fay ko xooloo. yàgg leeram gulal ko fay ko jëfoo. turandoom ak baayam Habib ak Jamil xaritam. maam dabax mi samp mbiram waaw Silimaan Soor na buur bi fay ko xalaat yokki leeram fulal ko fay ko jëfoo naan ko bushra ku mu demal ca wasiyam xam ne moo donnu seen xilaafa lu am waaw Silimaan Soor na buur bi fay ko xalaat ñaan defal raw du góor gi ta nga may wér ta fay doxalam julli buur musalam yal ko dottil ngën ji yoon nen ki rañaan yéeg ci mayam waaw seyni may seer nda bi fay doxalam yekki leeral ku nan ko fay ka ñoñam ya ak ku koray xeñ seeni jeexit wahaabu may ñu ngërëm waaw may seer nda bi fay doxalam واحتلام هنا القفيد جفون حاج قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكوى حج قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكوى yi fay ko xolam yokk leeram fulal ko sant jëfam ci ndigalam ñun ñëpp fatiha ci teg ko ci ñaanu maamam Seydi El Hadji Malick waaye ñaanu way juram suñu way jur di Seydi Mouhamadul Mansour liñ fiy ñaanit yal na ko ko yàlla jotale soppi ko muy ay leer ak i maratib ci moom ak mboolem njabootu Cheikh Seydi El Hadji yëpp ñu jàng ñaan yii ci ndigalam nag lañ koy jàng ndax moo ñu ko sant luñ fi waxit ak lu ñu fi defit ñu def ko ci ndigalam yal na ko yàlla nangu ci barkeem moom mi toog ci barke way juróom ci barke maamam yu baax yi ñu jàng fatiha ayatal kursi suratul ixlaas salaatul fatihi yaa rabbana yaa maalikal kawnayni qinaa ilaahi sharra fi daarayni yaa rabbana yaa maalikal kawnayni qinaa ilaahi sharra fi daarayni yaa rabbana yaa maalikal kawnayni qinaa ilaahi sharra fi daarayni at mim lanaa nuuranaa mim lanaa nuuranaa waxfir jaraa'imanaa taqdi xawaa'ijanaa yaa waasi'a rahmi taqabbal allaahu rabbu naasi dacwatanaa mimmaa nuxibbu bihi bi jaahi yaasiina sallal ilaahu alal mahmuudi sayyidinaa wal aali wal asxaabi subaaqul mayaadiin